Orea ne m'a pas proposé une reconversion. Euh, quand ils m'ont dit, ils m'ont donné un nouveau contrat. J'ai signé là-bas à vie. Et ils m'ont promis, après la fin de ma carrière, ils vont me reconvertir dans le staff du club. Aller faire des études, tout est réglé à Toulouse pour faire une formation. Après, les trois ans de carrière football, footballeur que j'ai signé là-bas. Mais ils ne m'ont pas dit qu'ils vont me reconvertir. Non, non, non, non, je suis toujours footballeur, moi. <laughs> je suis toujours footballeur. Pourquoi toujours Guinée Parce que Dieu a dit toujours Guinée. Donc moi aussi, toujours Guinée. Dieu ne peut pas me dire que tu vas aller en, en Guinée, après moi je vais choisir euh, ma destination. Non. C'est la destination dont Dieu a mis sur mon chemin, je vais prendre. Que ce soit Guinée ou euh, Madagascar ou Istanbul ou Perpignan ou bas, tout ça là, n'est pas important. L'important c'est la réussite. Parce que tôt ou tard, vivant ou mort, on va retourner au Sénégal. Ouais, depuis ma blessure, je connais mes vrais amis. Voilà, ça quand même, ce sont des choses que je confirmer. Parce que c'était dur, donc si moment yu difficile yi ngay xam kii mooy kii kii mooy kan taxul ma jàppale kenn mer wala ma ŋàññi kenn juste rek daf may permettre ma mën a gis bu baax baax parce que des fois yàlla dalay teg ay torof torof bon nga yaakaar ne dalaa lool loolu la am na lu mu la bëgg woon parce que benn instant da ngay nekk ci àdduna doo xam nu mu demee quoi da ngay tëlëx tëlëx dem rek il faut que ñu yàlla freiné la wala dara freiné la pour nga jëlaat recul xoolaat bu baax a baax defaraat say garde xam nga comme on le dit rek reculer pour mieux. je suis en parfait contact avec sama gars depuis ma gaañu ba léegi voilà am na ñoo xam ne si boobu ba léegi jaafara Kara Koulibaly Salif Sané Sadio Mané Sabali mbay Paali Njaay voilà Gànna Oui, nous nous avons déggante la Nous avons nekk di may est constamment ma matière parce que on était des frères en sélection Dieu a fait que nous, nous ko jëlee nekk sélection ma nekkatuma et pourtant on a toujours gardé notre fraternité c'est important par contre il y a d'autres yoo xam si <laughs> il m'a appelé hein. quand j'étais blessé il fait il faisait partie des premiers Sénégalais qui m'ont appelé voilà il m'a appelé il m'a souhaité pour notre rétablissement il s'est soucié de mon cas comme étant un grand frère un parent un ami un oncle voilà il a fait son devoir de me souhaiter pour notre établissement. Par contre, il y a d'autres qui ne l'ont pas fait. Voilà donc. il Sadio de ngi déggante moi même Sadio Il ñoo des constamment parce que lui il a une bonne éducation il est humble il n'est pas compliqué bon faut le quoi voilà Mini ngi waxtaan mini nit ñi mi c'est une personne malgré il a un statut international très élevé aujourd'hui fu ñuy gis ay Ronaldinho Ronaldo du Messi foo lañ koy gis te pourtant boo ko sonnee léegi téléphone na jot donc ça, moom amuma kenn amul lu mu koy sikki wala lu mu koy saaga wala képp ko aussi rek da nga bëgg salir voilà c'est un frère il fait la fierté de tous les Sénégalais parce que tey am na yu ñuy tudd man sans besoin demee bay tudd benn jour sénégalais l'un des meilleurs joueurs au monde il a mérité de prendre le ballon d'or européen donc kooku amuñu lu ñu koy def lu dul di ko ñaana yàlla mu wér yàlla bàyyi ko sagoom ak xalaatam kese mënuñu ko defal leneen. ma carrière bon c'est parti de nulle part juste dama jéeg cadet navetan HLM voilà après ñu def un test au niveau de Saint-Louis ben centre bu Boulogne ubbi bees mu tudd saint football centre ma réussir ma football foofu première année ñu jël coupe du Sénégal on avait un centre où il y avait des joueurs télé 32 voilà la même année même en sélection cadet équipe nationale donc après cela ma xam ça sent bon quoi donc monsieur suivre chemin bi di góorgóorlu di ñafé di franchir ay paliers di franchir ay paliers voilà en mois donné ma dem ba xam ne li ma doon c'était pour voyager ça a commencé à retarder donc ma jël beneen option ça veut dire essayer de gagner un salaire moi seul pour mën a dimbali samay samay parents ci laa ci laa jël décision dem Linguère moom ma dem aussi foofu moom fekk fay nit Amara en l'occurrence mu jàppale ma wax teg ma si yoon def muy affaire yu metti liggéey yu metti ma assumé ko après mu jur fruit ma commencé di may sélection commencé am tuuti wecc dimbali samay waajur xam nga nekk samay xarit voilà après dem ma def fi Suède prêt dellu si ñëw jaraaf un an très dur compliqué voilà donc yàlla def ma am option ma am opportunité wu génn Sénégal dem Orea voilà mais dem c'était le choix. Voilà, Edouard. Actuellement, il est l'un des meilleurs gardiens au monde. Le meilleur gardien, l'un des meilleurs gardiens d'Afrique. Franchement, c'est un très très bon gardien. On n'a rien à dire sur lui. Que ce soit lui, Gomis, ils sont tous bons. Ablaï, on n'en dire même pas. Le Sénégal, quand même, n'a pas de problème sur ces rangs-là. Donc, y ne leen pas rek a projet même quoi côté football xam nga ñu nekk si li ñu nekk parce que xam naa ni li ñu def bii passé buñ ci yokkaat ci un peu plus incha allah dañu indi coupe d'Afrique donc am ñu mention spéciale à Edouard mu ko gérer ba gaañu dem gumis ñëw gérer ko avec des valeurs sûres dinañ leen ñaanal yàlla rek li ñuy jug sumb moom mu wéy quoi ñoom ñoo fi nekk nii amuñu lu ñuy def pour ñu ñaan leen yàlla ñu tette équipe bi voilà.

mooy ngeen pousser leen te critique bi kese ngeen war a critique bi ngeen war a essayer aussi de ne pas créer des zizanie entre nous en disant que qui moo rejeté, a gérer kii moo war a Sénégal ben bop la Aliou ci moo yor buum bi nañ ko bàyyi Veille véhiculer ko ku mu tab parce que si Sénégal ko fi jël mën na gérer place keneen amul kenn ku fi mën kenn par exemple si quand il y de Edouard Alfred Abdoulaye ces trois meilleurs le coach peut fermer les yeux choisir un dans l'axe Koulibaly Pape de Cissé Ousseynou qui n'est même pas encore arrivé Karambod c'est Okuyate. Alice peut fermer Salissane pour peut fermer les yeux choisir deux Lave gauche Pape Soare, Salif euh, Salif beaucoup de personnes da koy day tànn jël bu ko neex côté droit Sabali Gassama day tànn djel ko neex bi Gana Sidi sar tout le monde day tànn djel ko neex attaque bi waxi nopi donc Sénégal a les arguments nécessaires pour waxuma sax Coupe d'Afrique pour jël lu Coupe d'Afrique mais le problème en est que da ngeen dul bàyyi sélection mu def lu mu war def ni bàyyi len ko mu def lu mu a def ni xam nga ñun ñi kenn woowatuñu sélection de critiquer mais je vous dis que le coach est sur la bonne voie il faut le laisser travailler avec ses joies.